tribunal correctionnel bu ndakaaru doon indi ay tontu ci tuuma yi nga xam ne rek gàll na ko ci ndoddu Amadou Mansour Faye ñoom ñaar ñooñee nag kenn ku ca nekk yéenekaay bi ne yaa ngi laaj sa morom ab ndàmpaay bu toll ci benn milliard enquête yëglekaay ne àtte bi ñu doon amal démb ci wàllum diffamation kii di Mimi Touré ma ngay assumer ba noppi di défendre ay kàddoom Sud Quotidien lu jëm ci wàllu développement judiciaire ak scandale jëm ci wàllu fond Covid 19 Mimi Touré ak Mansour Faye ñu ngay jouer première manche lu jëm ci coowal mbas mi nga xam ne rek moo fi xewoon ci réew Sénégal tax na na ba ñoom ñooñee nag démb taxaw nañ ci kanamu tribunal correctionnel bu ndakaaru fi mu toll nii nag moom maire bu Saint-Louis di Mansour ma ngay topp kii di Aminata Touré moom mi nga xam ne rek moo fi nekkoon jiital gouvernement bu Sénégal Aminata Touré dina xam lan mooy ëllëgëm ñeel boobee àtte juróom-ñetti fan ci weeru ut bi ñu jëm Le Soleil yëglekaay xëyee tey jii ci kàddu yi nga xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy yëkkati jëmale ko ci mën naa indi ay jafe-jafe ci wàllu tàggat yaram li ñu war a def rek mooy fexe ba mooy too di ko yëkkati ndax loolee mën naa jur ay een wala mu jur nag ay boddikonte ci wàllu xeet moom jiitu réew mi nag ma ngay woo acteurs yi ngir ñu daal di defub dànk ngir bu ko defee nag wàllu tàggat yaram doon ay compétition yoo xam ne rek dafay dajale ay peuple ci biir yëglekaay bi nag kii di njiitu réew mi ma ngay gën a kañ ñi nga xam ne rek ñoo di athlète sénégalais yi ba noppi di leen yokk courage leen fa yëglekaay ne ko sama bi ñu doon ubbi foofee ca Paris nag moom jiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye nag génn na ci fa ko doon xaar moom moomee nag ma ngay xam ne ni tàggat yaram warta doon ay compétition rek waaye dafa war a doon loo xam ne rek dafay boole ay doomu aadama ak frontière bu ñu mën a bàyyeekoo wala ci xeet wu ñu mën a bokk lu ni mel nag moo waral ci occasion bi nga xam ne rek moom la ñu doon ubbee ndaje moomee nag moom njiitu réew mi def na ci ab prox ndollu ngir ñaawlu nag lu jëm ci wàllu racisme ak boddikontey xeet bi nga xam ne rek dañu koy faral di nemmeeku ci wàllu tàggat yaram ci Walf Quotidien nag ma ngay soññ ñii di athlète sénégalais nag ngir ñu daal di def seen kéem kàttan ma nga naan leen dinaa leen supporter nag ngeen xam ne nag Sénégal gépp mi yi nga xam ne rek moom la ñu war a doxal ci secteur ma ngay lancé ay filem journaux yi fi mu di dànkaafu ngir ñu jaar ci yoon wu légal loo xam ne moo jëm ci wàllu licence yi état bu Sénégal mi ngi koy suspendre ñaar fukki gaal ak ñeent yoo xam ne rek jamono ji teg nañu leen loxo ndax lu jëm ci napp gu jaarul yoon gi Le Soleil yëglekaay ne ñàkk sàmmonte ak code de la pêche bi nga xam ne rek moom la taxawaloon yoon tax na ba ñaar fukki bato ak ñeent jamono ji nag teg nañu leen loxo téeméer ak ñett ci ay millions ci suñu xaalis mooy amande bi nga xam ne rek war nañu ko verser foofee ca trésor public wax ci wàllu émigration clandestine bés bu yàlla sàkk yéenekaay bi ne fanweeri doomi aadama ak ñett daanu ñàkk seen bakkan ci géej gi les éco yëglekaay nekk mbir yi kay ma ngay gën di jéggi dayoo ci biir yëglekaay boobee nag bugaan géy dani ma ngay tàkk ci kaw jomaay fay ak gornement moom moomee nag ma ngay xam ne ni seenuk tëlee ak seenuk bokk na ci li waral ndaw seen bakkan ci biir géej gi Bougane Gueye Dany ci biir yëglekaay bii di évidence ma ngay xam ne ni nag ñàkk xarañteef ak ñàkk saafara jafe-jafe yi ndaw yi di jànkonteel bokk na ci li waral mënuñoo bàyyi géej gi tribune yëglekaay ne Bougane kay fi mu toll nii nag ma ngay joxoñ baaraamu tuuma gouvernement bu yees bi ne lu jiin njaag ñoom ñooy njaag ci ni ndaw ñi di ñàkkee seen bakkan ci biir géej gi moom Bougane Gueye Dany ma nga naan jomaay fay nag caaxaan baaxul fexe leen a wut ay saafara nag yoo xam ne dina tax ba ndaw yi des fii ci réew Sénégal ñetti weer rek ngeen defagum ci réew mi junneeg juróom ci ay ndaw naka ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi wax ci ñeneen ñu ñàkk seen bakkan mu di accident bi nga xam ne rek ma nga amee foofee ca Ndulumaaji yéene kaay bi ne ñaar fukki victime ñoo ci loru juróom benn yi ñàkk seen bakkan juróom ñaar yi am ci ay gaañu gaañu yu metti Vox Populi ne ko benn woto bu 18 place boo xam ne rek am na fanweeri at moo tase ak benn camion boo xam ne rek am na fanweeri at ak juróom lu ñu mel nag moo sookee accident boobee ba juróom benn doomi aadama ñàkk ci seen bakkan jëwriñ ju ñu dénk wàllu transport di El Malick Ndiaye nag ma ngay fàttali ñii di dawal dawalkat yi nag ngir ñuy sàmmonteek lii di code de la route ba mën a wattandiku accident yi président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay jébbal ak njaalam ba noppi di sàkku nag ñu daal taxaw ñi nga xam ne rek ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu addu jëmale xam ne rek ñu ngi koy tudd mu toll ci deux cent millions yéene kaay bi ne jamono ji nag police nationale yëngatu na juróom-ñeenti way takk der yoo xam ne rek waa dig dañ leen a teg loxo ñoom nag lañ leen di tuumaal bokk na ci ay koppar yoo xam ne rek dañu koo jëlee ci ay ressortissants maliens la ñu déclaré ne moom la